Euh, amis internautes tey ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ci foire bi di salon international de l'élevage donc ñu organiser ko nag muy Adam Adam nag ku ne xam na ko muy alliance sénégalaise pour le développement et l'amélioration des races tey mu nekkoon plus de 266 de box yi nga xamante ne nii ay éleveurs ñëw nañu bàyyeekoo fu ne ci sous région bi lu ci mel ni Mali euh, Gambie Guinée. donc ñu jóge fu nekk ñëw exposé donc ñëw ci salon international bi nga xamante ne nii tey nekk na ci salon yi gën a mag donc ñu fas yéene leen woon li nga xamante ne nii mooy euh, sujet yi nga xamante ne nii exposants yi indi nañ ko fi jóge un peu partout ñi nga xam ne aussi tamit ñu ngi fii di liggéey liggéey bu rafet ci wàllu l'élevage donc di ngeen découvrir quelques instants donc li nga xamante ne ni am na fi ci xeetu euh, élevage donc lu ci mel ni fas nag yi donc xar yi béy aussi tamit lépp am na fi ci kanam tuuti danañ ko seetaan c'est waaye yu julli waay. waaw damay waajal wax. ah da ngay fomelu ak fomelu ak fomelu mil. ah mil. fomelu mil. sama bu ne dafa dugg ci mil. salaamaaleykum mbokki euh, téléspectateurs yi nuyu nañu leen bu baax euh, ziar leen tatagal leen joxati leen seen wàccuwaay di leen wax ne nag euh, ah réew dem na këng waxi mag dem ndañ tàlli yéen a ngi yéen a ko doon xaar ah la quatorzième édition l'histoire retiendra tey boo xoolee organisation bi xam ne wax dëgg yàlla ah élevage sekki na ay jéeg waaye Adam day ah def nañu affaire ndax nag ku xool li nga xamante ne tey jii moom moo nekk ci biir box yi. xam ne wax dëgg yàlla gars yi macha allah liggéey nañu bu baax a baax mais du point de vue organisationnel mention spéciale nous tirons le chapeau à l'ensemble du bureau euh, du bureau de l'Alliance sénégalaise pour le développement et l'amélioration des races tey à sa tête euh, le président Fadilou Keita waaye tamit tey succédé par son ami son frère son compagnon le champion Issa Saka en tout cas gars yi mbir mi dana mais dana neex di leen fàttaliwaat nag euh, que ni événement bi dafa multidimensionnel ndax euh, lan moo ko tax a jóg. gars yi xel yi daal di delluwaat tuuti ci ginnaaw ah du ma xuus sax ba ca kaw a kaw waaye dama naan rek bu ñu fàttalikoo 2011 le champion bi nga xamante ne moo di Nations Unies l'histoire retiendra ce champion bi nga xamante ne yëngaloon na Adam yëngal élevage bi ah mu nekkoon vainqueur au niveau national ñu dem ba jëmmi jamono saan ah le champion magistrat nag ñëw ah moom tamit wane boppam daal di imposer wu installé wu ndeysaan régné pendant très longtemps ba ñu fa jógee ñu ne kan moo ci topp ñu ne ah beneen champion boo xamante ne tamit ndeysaan ah, ndaanaan la doomu ndaanaan bokk ci giiru ndaanaan le champion galactique ah borom 174 kilos kon na gars yi coow li coow li mu nekk ndaanaan boo xamante ni itamit li mu war def yëpp def na ko waaye bañ fa jógee kan moo ñëw ñu ne ah le champion Aldibo mooy waa Wakaam yi daal di am ndam bés boobu ndeysaan du ma ko fàtte mu neexoon lool ah asiko yi ñëw affaire yi yëngu affaire yi neex ah dimension bi kawe macha allah kon nag ba tey jii moom mooy champion en titre Aldibo mais qui va remplacer ce grand champion kan mooy remplacer Aldibo incha allahu bi danañ ko xam gars yi coow li coow li daal mooy wëree woo dem na kan waxi mag dem nañ daal daanaan yëpp ñëw ni daanaan yëpp ñëw nañ partout à travers le Sénégal mais qui va remplacer Aldibo incha allah si dans quelques jours dañ xam kan mooy doon champion bi nga xamante ne loxoom na dugg ci soos. asalaamaaleykum. wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yëpp di ziar ñëpp man la Bamba nekk bergerie Galaya bu Abukan euh, ñu ñëw tey exposé si foire Saladam bi. foir bi moom wax dëgg yàlla euh, tey ko am nañ ci contentement bu baax ndax organisation beeg lépp jaar na yoon te tey boo gisee foire bi visiteurs yi wuy si nañ waa sujet rafet na élevage daal ca kaw ca kanam quoi. dañoo ñëw pour exposer rek def lu simple waaw dañoo ñëw jël ñaari box pour exposer xar yi def lu simple lu nga xamante ne tey jii. comme ñun nekk nañ euh, bergerie boo xamante ne tey kenn mënul wax bergerie ci senegal te doo wax bergerie Galoya kii mi ngi tudd Mariama nekk doom ci Jogoy yaay ji nekk euh, doomu Zalatan kii nii mi ngi tudd Abi nekk euh, doom ci ki nga xamante ne moo di Grand Rane yaayam nekk doomu Zalatan waaw. kii mi ngi tudd Ñambe Junior euh, nekk doom ci Dugaynde yaay ji nekk doomu Grand Rane âge bi mi ngi toll ci 15 mois. moom dañ ko indi exposé ko nii rek pour wan ko gars yi waaw. salaamaaleykum. Euh, gars yi maa ngi leen di baax di leen jox seen cas seen wàccuwaay euh, man la Adama Gueye euh, nekk euh, Njaxiraat di leen maa ngi leen nuyu di leen sant di bu baax si invitation bi nga ma invité di leen wax ni suñu participation si foire bi foire bi vraiment neex na parce que chaque année day ñëw di indi suñu sujet parce que ku indi sixième rek bëgg na nit ñi xam ko te fii wa ñun bergerie du Jolof si liggéey la ñuy xamee moo tax actuellement si niveau bi ñu toll nii ñëpp bëgg nañu xam ñun si liggéey bi ñu liggéey bu baax euh, formel bi ma téye nag moom mooy Rabia moom euh, magam moom moo jëloon euh, première formel espoir Thiès Reit moom laa téye nii nekkoon quatrième position moom laa téye ni nekk Bergerie du Jolof non foire moom macha allah parce que foire ba par deux ans lay am kon tey jii bu nekkee dañ ko waaj ba yeesi fii nii. Euh, am nañ si yaakaar bu baax a baax sujet bi ñu indi euh, gars yi di dinañ si mën a gis seen bopp bu baax a baax et puis organisation bi jaar na yoon euh, et puis sunu président sunu nouveau président nga xam ne ni moom moo nekk si Adam ñu koy ñaan yàlla fu mu nekk sunu borom génn ko fu baax a baax mais teew teme gars ñu ngi doxal liggéey bu baax a baax macha allah. non fois bi jàngal ma dafa maa jàngale ci parce que chaque jour rek da nga gis ay nouveau loo xam ne ni daaw ko gis nga gis ko. si wàllu organisation si wàllu euh, développement si euh, si élevage parce élevage loolu la ñuy wax élevage partagé élevage euh, daa war a continuer nekkul lieu arrière parce que xar yi chaque jour rek mooy ne wax dañuy màgg di di ànd ak nit parce que niveau bi nga xam ne fa la ñu tolloon si élevage su ma juumul niveau boobu jàll na gën naa waa waaw ñu si sant bu baax a baax a baax si gars yi nga xam ne ñu ñooy surga yi nekk si liggéey bi. waaw loolu moom ñu ngi si sant bu baax a baax gars yi. maal bi nag euh, sëtu jógee la sëtu jógee la ñu teg si benn doomu batu batuñe batuñe képp ku ko dégg nga xam ne nii moom moo defoon cent vingt yi waaw ñu amoon nañ si doomam bu tudd euh, Nasser waa dafa daanu mais rasit bi nga gis ni xale mu ngi si vingt mois. waaw mbokku téléspectateurs yi kii mooy Zaltron waa Zaltron sët la si magistrat papa ji doomu magistrat la yaay ji doomu Picasso waaw moom euh, espoir la mu ngi si 18 mois waaw juddoo si kër gi tamit euh, moom bokk si xar yi nga xam ne moom la ñuy liggéey actuellement waaw actuellement moom euh, maal la boo xam ne maal bu ñu am yaakaar la te macha allah mu ngi def production boo xamante nii waaw production bu am solo la lu 17 mois xoolal melokaanam xool bindam xar day bindu jeng xoolal melokaanam xool bindam attention xar bii ba pare day mën a jur am solo saa yi xar fa ci wax amul eh, ay may non doom may saa moo ko jur may ndaj doom Picasso kan mooy Picasso moo teg fi Karamoko mm-hmm. ak kan teg fi Buur Saalum ak kan Picasso Paulo teg fi PDG. PDG ak kan. DG DG ak xar bi day bindu jeng xoolal Picasso xool xar bi xool Massa xool xar bi yaram bi dafa ñibbi aplomb yi wóor am wetu kaw am wetu suuf. tellement. nekk na xar boo xamante ne mu ngi liggéey daal si kër gi te li muy liggéey si kër gi moom ku ñëw di si teg sa bët daal. waaw mu ngi noonu moom muy deuxième mâle bi nga xam ne moo nekk si kër gi waaw kii doomam la. waaw euh, kii doomu Zaltron la mu ngi si 3 mois. waaw moom aussi macha allah euh, nekk xar boo xamante ne yaay ji surtout euh, Saalum la tamit donc moom mu ngi si kër gi daal nekk mboota yi nga xam ne ñu ñoo leen juddulee waaw. maa ngi tudd du Seydou Babacar Ndongo nekk fii si bergerie bi ñuy wax bergerie la Tanor waaw ñu ñu ngi dëkk nekk nekkee Sangalkam après gendarmerie bi. waaw ñu ngi nii ñëw exposé ci foire Salade Saladam 2023 waaw indi fi ay Cissé waaw di gis ne tamit salon bi moom niveau bi yokk na trop waa c'est la première fois aussi ñuy génn di exposé suñuy xar waa ñu ngi nii daal bon ñëw exposé ay xar yu xar xar yu mucc ayib yi waaw ñëw war ko présenté suñu mbokk yi pour ñu gën ñoo ràññee daal. waa salon bi moom macha allah niveau bi kawe na organisation tamit am na ci par rapport ak euh, yi jàll waa di wax ne tamit salon 2023 bi. moom macha allah waaw yàlla na yàlla def daal ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génne si alhamdulilah rabbil alamin waaw. waaw lii rek lii rek neex na tey jii nii ñu juddule xar yi yëpp ñëw exposé ko ku ñëw gis ne production bi ñu ñoo ko juddule muy maal yëpp ñu ngi fi gis at mboote yeeg yëpp ñoo juddule ko ñëw présenté ko nit ñi ñëw di ko xool loolu rek fierté la donc. salon bi permettre nañu aussi tamit ñu gën am ay connaissances permettre nañu aussi ñu mën a exp wane suñu suñu liggéey tamit natt suñu bopp xam fu ñu toll pour que beneen yoon ñu gën a améliorer wu. bon waaw découvrir naa fi lu bëri mooy que ñun suñu càmm par rapport ak li nga xam ne foofu la càmm toll ñun ñu ngi si euh, si si si yoon bi daal waaw ñu ngi ñaan yàlla tamit bi ñuy bi ñuy ñëwaat gën a ñu gën a améliorer par rapport ak li ñu indi ren. waaw waaw euh, mën naa la présenter sujet yi maal bii nii ngay gis. waaw maal bii ngay gis mooy géej waaw di doom si wëz yaay ji di doomu gouverneur waa wëz suñuy wax ci moom dañuy wax ne moom doomu Vieux Diallo la Vieux Diallo doomu Biram 2 waaw moom euh, côté côté yaayu wës dañuy wax doomu Maguette Gissé la Maguette Maguette Maguette Gissé nekk doomu Yékini Yékini di sëtu Ibou Kébé waaw côté yaayam doomu gouverneur la waaw gouverneur nekk doomu préfet yaay ji nekk gala doom euh, yaay ji nekk galacti donc moom moom la ñuy moom lañ koy présenté kii mooy première mâle bi waaw indi nañ fi tamit ay sujet sujet bi aussi ñu leen présenté kii euh, sët la si grand si magistrat yaay ji doom la aussi si si Picasso waaw papam doomu magistrat la yaayam doomu Picasso la moom seex la seexam mâle la moo nekk si beneen box bi waaw moom jeune euh, espoir la boo xamante ne mu ngi si 15 mois waaw moom tamit mu ngi si kër gi bokk si liggéey bi si ñun tamit ñoo ko juddulee waaw. waaw euh, mooy yi ma mën a wax rek mooy élevage moom passion la patience la aussi parce que su nekku lu tax ma naan passion la mooy que amour bi ngay am ak xar yi maanaam temps ngay def si xar yi sax presque doo ko def nit ñi donc ñun loolu mooy suñu euh, loolu mooy suñu amour. patience bi nag mooy tey jii nii am na foire bu njëkkoon euh, yoo xam ne weesu na ñun mënuñ si woon exposé parce que tey période bi boobu dañ nekkoon doon defaru. tey ji suñu ñëwee exposé loo xamante ne ñun ñun ñoo ko liggéey suñu fierté la donc patience boobu ngay am di liggéey di amélioré wu di xaar ba foire bi nga xamante ne jot na nga war a mën a génn nga génn wane say sujet kon loolu noonu patience boobu noonu dafa am solo tamit si élevage. salaamaaleykum waa foire bi ñu ngi leen di di leen ziare ñu ngi exposé fii euh, ci Adam bi euh, ñun Ndaw et tey indi nañ fi ay sujets yoo xamante ni tey. Euh, ñooy représenté ndawee frère bi macha allah waaw euh, euh, foire bi boo xoolee tey indi nañ cisé yi nga xamante ni ñu bëggoon gis xar yi tey dinañ ñëw te buñ leen gisee seen xel dina seen xol dina sedd macha allah. waaw foire bi jàngal nañu foire bi jàngal nañu lu bëri te foire boo xoolee nat sa bopp la rek ndax boo xoolee lépp li nga doon liggéey tey da lay boo ñëwee foire nga xool sa morom yi lu ñu liggéey nga liggéey lu ko raw incha allah ndax àdduna liggéey kasa ndax xar yi baax boo ko yoree ñoom ñooy waxal seen bopp kon soxlawul ku leen di waxal macha allah moo tax ñu exposé fii ci adam bi. waaw waaw maal bi boo xoolee mooy Capaacoli ah, di doom ci évolution évolution nekk doomu boo Niang boo ñaa nekk set si Assane 2 yaayam ñu jël benn doom Diatta séeréel teg ci booy Poulo yaayam juddu macha allah. waaw boo xoolee xar mee ko waral lekk ndax mun naa ni 26 euh, mois mu mel nii loolu euh, euh, exception la si élevage bi macha allah. xale la nag dafa teg ci quoi instant yii comité yaram jërëgul macha allah dafa ñëw pour seeraan non li nga ko regretté moom seerul ndax xar boo xar bu baax boo ko bëggee du métti jarul muy seer. seerul 45 <laughs> lañ ci def rek waaw millions waaw. salaamaaleykum waaw maa ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp waaw man la Boutou Sy euh, dëkk Pikine ginnaaw Rail Nord. waaw fii dama fi ñëw en tant que invité. waaw macha allah excellent comme d'habitude rek waaw macha allah. lii mooy géant papillon français moom ñu koy xàmmewee si. ni muy bi salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi seetaan ñu la njaay et frère te ñoo ñëwoon participer si foire Adam muy suñu première participation te nag ñu ñëwoon fi ngir wan nit ñi si li ñuy yëngu ci élevage te ñu nuwoon woon fi ay ay espèces yu différent waaw tey loolu lañ ñëwoon wan wan waa Sénégal ni élevage ñun ñu ngi ci biir daal. waaw ñun élevage bi ñuy def basse cour la lépp luy def si wàllu dunk dañ koy def lapin dañ koy def lu ci mel ni autorisé suñu ginnaaw ñun ñoo ko exposé exposé nañ fi ay pigeon yu mel ni monnaie indi nañ fi tamit ay jàmm jóob indi nañ fi ay ginaar yu différent tamit lu ci mel ni ay cochin blanc cochin kayité ak ay herminé. maa dinañ jox seen wàccuwaay yooyu ñëpp waaw foire bi moom neex na neex na trop waaw lépp lépp baax na daal organisation beeg euh, lépp daal sawa waaw lépp lépp la dox waaw buum yi tamit waaw client yaa ngi neex na moom waaw Adam moom am na solo macha allah waaw. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu maa ngi tudd Soxna May maa représenté fii waa FEM Serigne Modou Mbacké Falilou ci soow mi waaw foire bi moom wax dëgg fa moom macha allah ñu ngi si gis nañ suñu bopp ak produit yooyu yëpp day tax nga gën a am ay partenaire tamit dañ ci xamee ñu bëri waaw macha allah moom. asalaamaaleykum man la Modou Kébé Sarr nekk exposant fii nouvelle vision de l'élevage waaw foire nag am na njëriñ lool parce que connaissance bi indi bagage yoo xam ne si ni yu raar la loolu yëpp mu ngi ci lépp luy élevage rek nag dañ koy def lépp couveuse déplumeuse chauffage xarak importer ay ginaar lépp daal lépp loo xam si ne rek dinde cher lépp daal nañ koy def organisation moom macha allah baax na rafet nañ ko trop trop trop waaw waaw sëñ bi maa ngi lay ziare maa ngi nuyu waa foire bi yëpp ku fi participer ak ñi fi ñëw visiter yëpp ñoo ngi leen di ziare ah fas yéene waxtaan tuuti ci foire bi rek ah, wax dëgg yàlla foire la boo xam ne si daal tabaar fakal la suuf si ñi nga xam ne si ñoo ngi yëngu ci wàllu volaille fi ñu dugal méngoon nag fi volaille war nekk yàlla musal nu ci ngelaw li suuf si jamono bi nga xam ne si feebar dafa am ko li ñu njëkk bégloo mooy euh, fi ñu dugal di euh, nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk di visiter xam loolu mooy njëriñu foire contact yi euh, lu nit ñi bëggoon a gis ñu gis ko lu ñu bëggoon a xam ñu xam ko lu la bëgg a laaj ñu laaj kon daal foire bi wax dëgg yàlla dem momento am nañ ci satisfaction bu baax daal. waaw Adam passé na bu doon am bu doon wax lu ëpp njariñ bu ëpp dañ naan ëpp na njëriñ parce que. ku wax doole mooy boolo ca adam mbooloo la mbooloo la ah, ñaan yàlla rek ah, yàlla gën a déggale gën a dolli sutura parce que mbooloo mooy doole te ñi fi ñëw ca boolo woon xam na ni mbooloo mooy doole ñuy ñaan yàlla mu gën a yaatu rek. asalaamaaleykum. man la Marie Jo Pereira conseillère clientèle bu Crédit Mutuel du Sénégal dañu ñëw nag participer ci foiru Adam bi parce que ñun sponsor nañu du tey yàgg nañ leen sponsorisé ñu ñëw nag ci foiru salade salon kii bi bu ren bi bu Adam bi saladam bi pour ñëw fi assister leen en tant que sponsor pour fi tamit ay partenaires am te ne ñu mën liggéey ak ñoom ak ñu am te ne ñu mën leen jàppale ci seen liggéey ñi amul compte ñoo bi leen compte li bëgg denc seen xaalis ñu koy dencal ñi bëgg financement itam ñu financé leen accompagner leen moo ñu tax suñu teewaay bi fii tey ah, wax dëgg macha ñu ñun amuñu problème gis nañu ko tout bien ñu ngi dem ak dikk ñu ngi waxtaan ak clients yi ñu ngi am ay ouverture et cetera am na njariñ parce que éleveurs yi permettre tamit ñu xam xëy na mutuelle xam ne mën na leen accompagner ci fànn yu ne. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mouhamadou Lamine Ndiaye. nekk chef d'atelier euh, entreprise euh, métal art Sénégal ñu gën koo xam ci Mouhamed suñu PDG bi ñu tudd Mouhamed Diallo mooy suñu directeur général xëy na tey moo waroon wax kàddu yi sax mais comme xam ne dafa am yeneen rendez-vous yu mu nekk man la fi teg ma tey war ko fi tey dëgg yàlla ñun ñu ngi nekk ci entreprise métal art di yëngatu ci wàllu construction métallique wàllu wàllu ferronnerie tout ce tout ce qui est construction métallique aluminium inox et tout décoration intérieure ay box yoo xamante ni comme ni ñu defaree fii tey voilà comme box yi ñaar yi nga xamante ñoo amoon fii xaar yi suñ fi ñëwee tey mën na ngeen wan suñu conception su ñu defar leen dëgg yàlla mu nekk entreprise boo xam ne mi ngi développé ci wàllu ci wàllu national bu xamante ni telle sorte que gars yi ñu ci gis seen baax a baax a baax man nag kenn laa ci ka fay liggéeyee mën naa na maa ci nekk ci ñu gën a ndaw mais nag comme man la fi yàlla def tey ñu fekkente fi bon foog ñu jël kàddu wax si Adam nag peut-être moom la première fois ñuy liggéey mais je crois partenariat boo xamante ni wax dëgg yàlla am na opportunité quoi parce que tey ñu fi gisanteeg ñoo xamante ni ñu ngi fiy ñëw à chaque fois di waxtaan yi ñu war a def surtout box yi fi nekk et tout wax dëgg yàlla c'est un intéressant ñu ñaan nag yàlla ko continuer foire bi ne foire boo xamante ne day gën a continuer à l'étranger quoi chaque année muy am ñu gën def suñu participation dëgg yàlla di gën a wanal suñu teewaay ci bërëb bi mu nekk loo xamante ni ñu ñaan yàlla mu gën a kii ñun ñu ngi basé wu à Sodida waaw lii numéro un suñu entreprise mu ngi tudd Metal Art suñu numéro téléphone mu ngi nii Falaye G moo nekk nii numéro téléphone directeur mu ngi nekk 77 639 37 38 suñu site euh, internet mu ngi nekk www.metalartsenegal.com képp li nga xamante ni bëgg na fa yu baax rek nga jaar fa incha allah rab bi ñu defaral la yu baax incha allah merci waaw ñu ngi ci euh, exposition Salle Adam ñu ngi nekk stand de Grand Moulin de Dakar sponsor bi bu ñu waxee Grand Moulin de Dakar bi nga xam ne moom mooy defar lekk jur gi ñu naan ko ripaas jarga ripaas jarga nag dafa am ñaari façon dafa am béggee am euh, bovin bi bovin ak ovin bovin bi mooy bu dijj bi ovin mooy bu sew bi mooy bu spécial xar bi ak béy bi quoi mais nag euh, gis nañ ne sunu jaxasoo ak Adam léegi bientôt mu ëpp ëpp na fukki at di dem nekk vraiment loo xam ne kóllëre kese la parce que saa yi ñu ñëw exposé dañ ciy gis suñu bopp parce que ñoom it d' accord nañ ne Grand Moulin de Dakar euh, ripaasam ma gën si ripaas parce que moom kese bi mu fi nekkoon day dund ba fukki at ak juróom du dee du feebar mais léegi bi ko yeneen kër yi raxee nag xar yi dañuy gaaw a dee parce que Grand Moulin de Dakar c' est xam ne euh, lekk bi nga xam ne moom la ñuy jox xar ripaas bi ñiy càmbar lekk doomu aadama ñoo koy composé moom rek moo ko am du vétérinaire te ñu ngi ci am produit boo xam ne ñoom rek ko am mooy melas amul benn c'est produit boo xam ne nit na koo lekkati lu ko rëy loolu mooy jarga euh, xam naa ne naa laa woon benn échantillon bu ndaw bu la neexee après nga gis ko éleveurs yi dèjà jaxasoo nañ ak moom xam nañ ñu fu ñu dem ñu topp ñu moo tax lu ñu indi du taxaw lu ñu indi mu jeex ay 1000 1000 sac la ñuy jaay ci jaay pendant 10 jours parce que sac 40 kilos bi la ñu indi ñu ngi koy jaay 8600 bu ovin bi bovin bi indiwuñ ko indi indiwuñu farine bul fa grand mu ne am na farine am na bovin am na lépp par commande vase laitière mais fi mu ne nii jarga bégee bi rek lañ fi indi mooy bu sew bi 40 kilos puis 8600. Adam chaque année day am amélioration chaque année Adam day am ay euh, innovation yoo xam ne macha allah côté xar yi ñuy amélioré noonu la ñuy am innové Adam ñàkk exposé Adam erreur la. parce que mooy fête internationale boo xam ne rendez-vous international boo xam ne fête nationale la nit dana jógee partout ci cinq continents yi ñëw pour fekkee Adam Europe Amérique Océanie Asie Afrique nit dana jógee partout pour fekkee Adam bi am na ñoo xam ne Adam la ñuy préféré pour jël congé ñëw nekk exposition boo xam ne bul fatte aussi mouton ci àdduna bi Sénégal mooy numéro un loolu ñu ngi koy ndamoo di féliciter tous les éleveurs euh, moutons du Sénégal gis nga comme ni ma la ko waxee c'est le meilleur produit nit sax da koy lekk gisoo di nga amul danger tey Sonaged ñoo ñëwoon tey ci foire bi pour mun a accompagner ñi nga xam ne dañoo yor seen xar yi fi yor fi seen gétt yi non seulement andi nañ suñu bag à ordures pour teg ko fi pour bu ko defee képp ku sa gétt ba mu set rek nga dugal ko fa bac bi nag buñ ko fi tegee teguñu ko fi pour euh, en tant que pour ñu def ci ay xeer wala ay suuf mais dañ ko fi teg pour boo nettoyé nga lay ba mu set lay ba mu baax soo paree nga dugal ko ci pour bu ko defee ndax bu amee suuf wala mu am xeer da koy toj léegi ñun mbalit bi rek la ñu soxla ak pour pour bu ñu kiiyee ba bu ñu nettoyé seen kii balay ko pare ñu sotti ko ci non seulement UCG am nañu aloo Garavar moo nekk ne suñu kii ñoo nekk fi allo déchet bi moo nekk ni pour bu ko defee pour boo amee déchet ñi nga xam ne dañuy yor seeni i mu bari ñu bëgg pour ñu pour leen ko ci numéro bi la ñuy cent 202 123 bu ñu si wootee rek ñu ñëw nettoyé leen ba mu set dañoo bëgg dëkk bi jëm ci kanam salaamaaleykum ñu ngi nuyu monde élevage yëpp di nuyu ñëpp euh, Modou Niang la ñuy représenté région de Kaolack fii ci quatorzième édition Saladam vraiment foire bi neex na trop trop aussi waaw gis nañ suñ bopp vraiment organisation bi jaar na yoon xam nga gaa yaa ngi ñëw vraiment foire bi am na liggéey vraiment satisfaction am na bu baax a baax a baax. maa ngi leen di ziar di leen baal di nuyu waa Adam ñëpp macha allah fa tabaarakala di kontaan ci invitation bi vraiment ñu ngi jóge ba Mauritanie mais bi ñu ñëwee fii tamit rëccuwul la ñu fi doon wut quoi. vraiment parce que jël nañ ñu teg ñu daf ñu comme seen bopp vraiment chaque jour dañu ñëw fii chaque minute di laaj ndax ba amuñu benn problème vraiment di ñu bàyyi xel. vraiment loolu moom ku la ko def munoo koo fay ni nga wane ne moom élevage partagé la quoi bi ñu ñëwoo dëkkoo nañu macha allah alhamdulilah ala kulli xaal daal vraiment rëccuwuñu la lañ fi bi biñ fi ñëwee vraiment bi ñu xoolee suñu xool sedd na guy parce que journée la boo xam ni journée élevage la vraiment képp ku ko bëgg rek boo ñëwee fii sa xol dina sedd guy parce que lii moom ñun lañ ko defal parce que boo ñëwee sa xol dina sedd di nga gis xar yu rafet nag yu rafet macha allah fa la lépp am na solo daal vraiment ñu ngi ñaatal nag ñu yaatal ko ba incha allah ñun ñu mën cee jot vraiment solo nañ ko waaw comme xam nga àdduna moom ala kulli haal euh, ndànk rek la comme ni olof yi waxee ni ndànk-ndànk mooy jàpp bala ci ñaay adduna moom dara tëbu tëb sotti mais doomu aadama moom lépp loo bëgg nga dem sa pas-pas rek bu yàggee yàlla dina la ci jàppale. waaw parce que rek moo ci am solo soo xoolee macha allah ñu ngi soo xoolee li nga am ren bu déwénee li nga am moo koy daax kon maanaam jàpp naa ne ñu ngi amélioré élevage bi. may nuyu nag sama gaa yi nekk fële muy waa Azram vraiment li ko tàmbalee ci président ba ci membre bi bi gën a ndaw bàyyiwuma kenn vraiment di leen lii lépp ñoom la parce que vraiment ñoom lépp ñoom la alhamdulilah ala kulli haal ñun ay ndaw la ñoo xam ne dañ ñoo rek fa tabaarakalla yàlla yàlla xeeb doole yàlla may ñu wér ak wér la mosoon ñu ci seytaane ci dara jeen mag la Makhtar di la Sonacos. La Setouna a été créée en 1984 dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Tunisie. Depuis lors, donc, la Setouna appuie donc, les éleveurs Et avec donc, les turpitudes que la Sonacos a connues, donc la CEPNA a eu des difficultés dernièrement. Mais depuis avec l'arrivée d'une nouvelle direction, dirigée par euh, le directeur général Mourdian Fada, la Sonacos a repris ses activités et présente donc aux éleveurs deux types d'aliments, le Yafal et le Yafal Ladou. C'est-à-dire le Yafal qui est le gros grain, le Yafal Ladou qui est le petit grain. nous offrons aux éleveurs Euh, un aliment de qualité, donc vraiment pour leur permettre d'avoir un cheptel sain et de ne pas avoir de difficultés ou bien devoir à chaque fois aller chercher donc des intrants, cest à du maïs, des tourteaux, pour enrichir le bâtiment, le, leur aliment. Donc nous leur présentons déjà un élément prêt à la consommation, qui va leur faciliter vraiment un élevage, un Donc la foire de Adam, c'est la première fois que la Setouna participe, parce que c'est la première fois que nous avons été contactés, et la raison pour laquelle nous sommes là nous voulons aussi que cette collaboration continue dans le temps pour permettre donc aux éleveurs donc de mieux connaître euh, l'acétona et de leur offrir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un aliment de qualité. Euh, salaamaaleykum ñëpp maa ngi tudd Mansour Ndiaye représentant NMA fii ci foire bu Saladam 2023 Euh, ñun nag ñu ngi jëngu ci lépp lu jëm ci wàllu aliment bétail aliment volaille farine ak pâtes yi waaw. du euh, ma gisee Adam organisation bi jaar na yoon foire bi aussi jaar na yoon aussi ñu ñu ngi ciy gis suñu bopp daal am nañu visibilité te ñoo ngi jaay. ñun ñu ngi nekk partenaire waa Adam parce que boo xoolee édition yi fi jot a jàll yëpp. dañuy participer te chaque année saa bu ñu participer dañ ciy gis suñu du Abdoulaye Sarr laa tudd. maa fi représenté Orange Money au sein de la foire de Saladam. bon nous sommes partenaire lañ ci suñu dañoo nekk partenariat. tey dañoo ñëw fii. en grosso modo pour euh, nekk ak suñu clients yi ak partenaires yi nga xam ne ñoom ñooy exposants yi tout mhm. bon tey on a amené des offres yi nga xam ne mooy QR client bi pour clients yëpp yi nga xam ne amuñu smartphone mun a def transaction rapidement via Orange Money bu ñu demee si distributeur bi il suffit la carte mhm. distributeur bi def le def dépôt wala retrait lu si bëgg a def rek mhm. am nañ aussi beneen offre ñu indaale mooy wéli marchand c'est pour les marchands mooy ñi nga xam ne bon en quelque sorte amuñu papier yi nga xam ne moo war mooy marchand informel bi mhm. da leen di yombalal transaction bi parce que ku xam ku nekk xam ne monde bi fu mu toll nii si digitalisation lañ nekk de mhm. ce fait on les a amené le QR code boo xam ne dañ koy linké juste ak seen numéro pour client bi mën a def paiement bi yomb na te wóor na tey client bi nga xam ne moom moo def paiement bi dootul mën a annuler affaire bi parce que en général les partenaires sont confrontés à ce bi ma ñàkk sama xaalis ñun nag dañoo ñëw pour protéger suñu partenaire moo tax ñu ne gën a yomb gën a wóor gën a yomb gën a wóor tey si lii lañ ko représenté muy nga xam ne mooy Wéndi tey client bi bu defee ba pay ba fay ba pare mënatu ko annuler benn yoon du ko mën a annuler c'est la main sur ça yomb bi tamit jaratul ngay joxe numéro jaratul ngay def dara da ngay scanner juste ak l' application Orange Money bi ñu développé client yëpp mën nañ ko utiliser ñëpp mën nañ ko yomb na te soxla woo connexion internet il suffit juste nga activer sa 4 nga mun connecté wu si application bi kon xam nga ne kon loolu mooy gën a yomb gën a wóor par rapport ak foire bi nag bon kontaan nañ si gis nañ ne am na influence bu baax ba pare dinañu day leen dinañ gën a tourner la tête si yeneen activité comme yi nga xam ne mooy élevage bi ak yooyu ñi nga xam ne ñooy jaay ripaas yeeg yooyu wax dëgg yàlla gis nañ si suñu bopp parce que mouvement bi am na si et tout te c'est un pas mettre nañ ñu à l'aise te amuñu benn problème macha allah. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna euh, ñu ngi nii ci salon Adam 2023 euh, ñu ne ñu ñu ñu représenté bergerie High Level ci salon Adam 2023 donc. Mamadou Lamine ak Abdou Thiam ñëw exposé fii andi maal bu ñuy wax expert andi maal bu ñuy wax grand série ak euh, quelques sujets donc ñëw pour participer ci fenn bon foire bi nu nga gisee macha allah réussite lañ ci gis vraiment lépp luñ ci doon séntu yëpp am nañ ko parce que lii lii lii lii mooy Adam waaw Adam moom xam nga daa am fu ñu koy séntu moo tax toujours rek comme lu ñuy wax luñ ñu ñaan yëpp. vraiment yàlla def na ko affaire bi réussir na si jàmm parce que li ñuy wax naan cin bu naree neex su baxee xeeñ donc boo ñëwee première week bi da nga xam ne macha allah réussite am na exposants yi kontaan nañ xam nga surtout aération bi waaw surtout ba nga euh, booy xool ba ci am na si xar yoo xam ne sax dañuy defaroo ci biir foire bi te loolu lu koy waral mooy piste bi tey nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko aménagé loolu yëpp tey day day day joué ci xar yi boo xoolee ba ci visiteurs yi tamit macha allah bu ñu ñëwee amuñu problème couloir yaatu na dinañ mën a visit normal xam nga macha allah. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waaw euh, maa ngi tudd Amadou Diawara ñëw exposé ci foire bi foiru Adam. waaw mu nekk euh, loo xamante ni maanaam lu lu lu rafet la loo xamante ni day génnee sa bagage parce tey jii tey pour ñu xam la. foo ngay génn dem si foire te gis nañ ne euh, éleveurs yi bëgg nañ lu ñuy jaay parce que clients yi ñu ngi ñëw sant yàlla daal. a ah, organisation bi rafet na trop parce que man yàgg naa dem ay foire dem naa foire yu bëri presque région yëpp dem naa fa mais foire bi daal li ma fi gis gisuma ko si beneen si beneen foire. côté clientèle. si côté visite gis naa ne nit ñi ñu ngi ñëw bu baax. waaw te loolu lu am solo la. en plus si si stand aussi boo xoolee box yi bëri na lool Ah, maa ngi leen di nuyu waaye di leen sant di leen gërëm waaw foire bi waaw Adam liñ ci liggéey rafet na lool maanaam ñu ngi ñëw di visite waaw foire bi neex na lool ndax nit ñi bëgg na li ñuy def mooy pële yi xarit di taaral xarit te xarit tamit concret yi baax na lépp gis nañ suñ bopp daal ndax ñi ngi jaay ndax ku ñëpp ñu ngi siy gis seen bopp ani suñu yokk organisation bi man tamit jaar na yoon macha allah ndax ku nekk ñëw jël nga box dagal nañ la batse waaw nga xam ne la fii nga nekk fii nga yem waaw te ñëpp ñu ngi di visite di def lépp te loolu tawfeex la te ak yokkute la the fera is a nice fera but it's not as good as the last one it, the uh, not a big variety of animals there's, there's no people that making things in uh, um, shops it was here yeah, nothing Euh. c'est Ismaila Djibrila. On m'appelle Souma, du Mali. Nous sommes venus au Saladam ici en tant qu'invité euh, pour exposer le mouton Balbali Horon. C'est 100% BBH. Voilà, le mouton du Mali. Tout se passe bien, surtout euh, on a été bien accueillis. On a été bien félicité aussi par des, des avec euh, le mouton à travers, et, travers et ces moutons, on a beaucoup de réputation. Car ce sont des moutons purs, Bali Bali, Coron du Mali, qu'on a travaillé beaucoup longtemps. Voilà, comme vous le voyez, c'est pas des BH, les Balbalis souvent qui venaient ici. Voilà, c'est un mouton amélioré du point de vue des Sénégalais maintenant. Euh, c'est logique, parce que à, à travers l'évolution, quand on va à l'Eladoum, on sait vraiment, d'après les anciens univers sénégalais, ils ont beaucoup travaillé avec ces balibali. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui est de nouveau pour nous. Donc nous sommes là aussi pour voir comment ils ont travaillé les balibali pour atteindre ces niveaux, comme euh, vient de voir tout de suite ici dans le foire. Les visiteurs, les visiteurs sont sympas, on se plaint pas quand même. Nous sommes très très heureux ici. Et cette fois-ci, c'est pour l on a décidé de ne pas vendre et choisir quelques sujets de nos bergeries, vient les montrer ici au Sénégal. Voilà, c'est pas pour la vente et cette fois-ci quand même. Okay. On ne demande pas tout, mais vraiment, okay. désolé pour cette fois, ça, ça ne sera pas vendu. C'est l'association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines, euh, l'âme d'Aroc. Voilà. Moi, c'est l'organisateur, mon, téléphone, euh, mon contact, c'est 76 65 08 20